dañuy sant yàlla d'abord bi ñu yàlla kàttanalee ba nga xam ne ñun d'abord fii la ñu soqeekoo école 4 la ñu def suñu première pas bu ñu ko bi ko yàlla defee nag après dañu màgg ñu ne pourquoi pas mënuñu contribuer maanaam dugal suñu loxo ci développement Mbour euh, lu yaatu mais. ci développement établissement bii nga xam ne fi la ñu soqee ko woon ba ba ko yàlla defee nag ñu waxtaane ko donc ak suñu moyens yi ñu amagul ci cotisation bi mettre en place amicale bi ñu wàcc fi kaamil vraiment def récital de Coran fii ñaan yàlla mébét yi nga xam ne am nañ ko ñu mën ko yeggale yàlla def tey ñu mën a confectionner table banc yi wut ay fournitures scolaires ñëw jébbal ko directrice bi pour mu joxal ñu ko suñu élèves yi ëllëgu euh, amical bi yemul rek si Cheikh Demba bëgg nañu bu ñu yàlla kàttanale ñu mën a dimbale néew du doole yi dimbale ñi nga xam ne dañu ay wayu laago lañu dañu dem bu ñu demee ba am euh, kàttan bi sax bëgg nañu dugal suñu loxo ci jàkka yeeg ci jumaa yi ak ci yëpp vraiment loolu la ñu comme yàlla may nañu ñu euh, tabaxaat ay classe fii ci école 4 ba nga xam ne éducation bi dina gën a amélioré wu loolu la ñu bëgg. dafa am ay xale yoo xamante ne fii la ñu nekkoon di jàng bi ñuy jàng yàlla di leen pousse ñuy dem ba tey ji ñu tekki dara ñu wëlbatiku ne teraanga ji leen yàlla may dañ ci fàttaliku école bi nga xam ne fa la ñu jaar ñu dajale seeni doole. te kat association bi man li ma ci gën a yéem mooy association bi yàggul a juddu defagul juróom benn weer ñu mën fee taxawal lii lépp loolu moo lay wan ne lii yéene dëgg la. Euh, sabab bi li mu mën a jur nag mooy li ma ci gën a neex mooy dina yéwénal xale yi conditions yi ñuy toog di jàng dana yéwénal jàngalekat yi tamit seen métier am jàngale waaye itam dina dugal ci bopp xale yi ñu teel a xam ne ah àddina kat nii la boo doxee ak loo sore sore da ngay nga dellu si nga fàttali ko sa ginnaaw lii la ñuy wax ngor man jikko yooyu ñu jox xale yi fi mu nekk nii moom a gën a neex ci lépp.